jërë ngeen jëf nuyu nañ leen fi daan nuyoo di leen ziarat bu baax a baax di leen joxaat seen wàccuwaay bu wér tey ñu ñëw Médina di angle corniche fekk fi xale champion daanaan muy fils de def cinq combats cinq victoire war a jëm kan grand combat fan fële sa arène nationale diggante ma kan Sokh 2 jaxaay xale bi nga xam ne moom tam def na neuf combats huit victoire benn défaite tey ñu zaal confiance boole leen te ku ne zaal confiance xam ne daanaan la loo xam ne day wane boppam saa su gis ngeen xale baa ngi nii xale bii la xale bii mooy fils de Katy moo def cinq combats cinq victoire xale baa ngi nii mais Khalil dañuy jéem a dox si biir wala ñu jéem a doxantu si biir xool ñi fi nekk coach yi rek supporter rek yenn siikamba yi ñu jéem leen a xool ñu doxal Khalil nañ dem si biir xool xale wala xale Grand Médine bi wala xale Fass Galtape bi xale baa ngi noonu hee da koy defal butéel yi da koy sotti la mën ak la mënut waaw ay seddaay bi man mbër ma gën a ñeme risque seddaay bii ñu lay sotti ndox ay waay mbër a neex saan jël na ko sa gannaaw moom fils de Katy xale baa ngi noonu ndeysaan mais fils de si loone naka tey yaa am jàmm baax xale xale baa ngi noonu tey def sorti wane boppam ndeysaan xalil papa ziar naa la waaye ñu delloo ziar bu wér naka tey sant bu baax a baax dafa doon waajee ni ngeen waajee tey non gars yi xam nga rek bawal bawal yi dañuy liggéey tey samedi la mais ñu ngi ñëw boo xoolee moto yi ngay gis nii ñu ngi ñëw booy yi ñu ngi ci yoon bi di ñëw waaj euh, def nañ li ñu war a def lépp normal dina yóbbu mbooloo ci kattanu yàlla. est-ce bi ngeen jël Sokh de bu jaxaat. non moom xam nañ ko bu baax baax wax dëgg yàlla ndax bëre nanu bëre waat bëre na combat bi mujj a ñu daan ko kooñaa moo ko ko kooñaa moo ko daan te noo ko préparé. mais benn la dégg mu waa dagg dëgg la dëgg la dëgg la ñun ñoo ko ñoo ko ñoo ko ci ñun la dégg muñal waaw ci ñun la dégg muñal parce que kooñaa moo ko muj a daan kooñaa ko daan waaw te ñun ñoo pare Koña noo nekk heure bu ne xam nañu bu baax. mu dégg si yéen muñal tey ngeen ñëwaat mu est-ce que muñal boobu nekkul moom la bëgg a rectifier tax mu jël ki musul dégg muñal. non loolu ki mu am ki mu am moo du ne moo gën a garaaw kenn parce que lamb-lamb la mais dem fi mu dal moo baaxul. puisque fils de Katy. mën nga ko gis nii rek mais biir géew bi leneen la. biir leneen la. loolu bawol gépp xam nañ ko ci moom depuis bawol ba fii nag. Hmm. waaw. waaw séntu nañ si mu samp xeex. non tey combat bi nag lépp da ciy am. dina am xeex dina am bëre. li ci raw li bët. waaw waaw rafet na ñaan ndam rek ci kattanu yàlla. incha allah waaw jërëjëf. jërëjëf papa ziar. ñu dalal la ziar. tey ñëw Medina seet si leen. ñeneen ngeen di waaje seen doom. kom habitude rek ni ñu daan ñun mbër ni ñuy waajee premier combat ne la ñuy grand combat. ñëw li liggéey. ànd ak moom gis nga mbër yu mag yëpp a ngi nii tey écrit euh, école Cheikh Mbaba tey ñëpp a jóg ñëw ànd ak moom bu ko ñaan suñu borom mi maye ndam mu may ñu ndam te muy ndam lu sedd guy loolu la ñuy ñaan. waaw si lu ngeen si mu samp xeex. waaw ñun de combat bi mën nañu ceex gis xeex mën nañ ci gis bëri waaye bu ubbi ko ba ubbi ko daal pour mu ubbi ko xeex koy ubbi mais ci bëri lay jeexee. sox koo xam-xam dafa duggoon fi juum. day juumaat nag eh. walaay day day juumaat. maa la ko wax te bu jeexee bu boppam ci diggante ma ko euh, fi mu juume sax moo gën a yomb fi mu dal fi mu juume ah. moo gën a yomb fi mu dal. su ma déggee sax kii ileer gumba la. xam nga ko ah, yow xam nga ko de fi sekat yi moom kenn ku ne xam na ne ileeru gumba la soufflé arbitre bi moo moom moom moom lay xaar bu arbitre bi ne pire moom jàmm jeex na ak lu mu xew rek jàmm jeex na. dina leer si kanam. incha allah te yàlla ma ñu dem rek incha allah ñu ñaan bool bool yëpp ñëw teew. def nii. waaw. naa la. doom day. waaye sant yàlla bu baax. laal sa njaxas. waaw ànd sunu doom day rek nu mu tuddati euh, fils de quartier. moom lu àndal tey oyofal bis bi nag mooy loolu yàlla may si ndam lu sedd guy guy guy waaw dañ ko oyofal nii rek dañ ko oyofal nii rek bis bi dañ ko non non léegi daal dund nii rek soq bu dëw jaxaay xam ne duggoon na fi juum tey mu ñëwaat ndox du bàyyi yoonam ndox du bàyyi yoonam fi mu jóge ba jële fa defet fi mu jëm nii moo gën a diis. billaahi. fi mu jëm fi mu jëm fi mu fi mu bisam tey bii nii moo gën a fi mu euh, bis ba mu jógee moom. kon moom dafa juum juumaat da nga bëgg dafa juum juumaat. loolu la dëgg la moom te balaa koy xam balaa koy xam na heure bi suuf la ba tegee ba wàcce loxoom. nee na fi ñu xeex la fas yéene indi si combat bii nii. non day wax rek du xeex ak Aliou yor koy la commencé indi si combat bi. day yooru de maa la ko wax de bu yooruwul bu yooruwul mën na daju de. bu yooruwul bu yooruwul mën na daju de. est de Katy dina ko def. fils doful sax ñun duñu ko conseil ah. ñun duñu ko conseil moom lu mu indi rek ñun tax nañ sirip. ñun tax nañ sirip. loolu moom seen yëfa. Eh, ñun ko moom. moo tax ma loolu seen moo tax tamit. wàccaay fu tool toll. waaw ah, wàccaay bi ñooñu si rek ñooñu si di xaar dat am. waaw ñu commencé liggéey ni daal liggéey mooy loolu ñoo ngi nag liggéey bi ñoo ngi ci waaye mooy loolu tàmbale guñu normal normal. Ndour nga am waaw Youssou Ndour nga am waaye Youssou Ndour moom daanaka wax ji bareetul ndax moom tollut ni gars yi tollut ni gars yoo xamante ni yi nga xamante ni suñu écrit tollu ni moom diisul ni suñu diisul mënta gi diis suñu benn poids lourd écrit ku ci mel ni Mor Pouy moom gën ko diis ku ci mel ni njaaxum gën ko diis. waxatuma la sànni rep ba Gris kon ma maanaam man dama dalal sama xel. i nga daan am at moom bokkut. waaw adversaire yooyu moom day wax rek. rek nga daan am doo am adversaire nag. Ah, man gëw daanu daan laa gëm. waaw man gëw ma daanu daan laa gëm gëw ma ko nag man daan laa gëm. comment sa digganteeg Youssou Ndour. di nga xaar moo lépp mën na ci am. xeex moom. moom waaw day xeex man daa jàpp ne man ñimewuma ko wala wala dama ko ragal maanaam bër bi na fir barke Sëñ Faaw laa jël bu xeexam xeex moom su bëree ma bëree moom. moom nga samp jaaga si diggante Youssou Ndour xeex. Youssou xeex sax ndax daa foog ne bu xeexee daanu xeex xeex moom du ko def. sorte yi ñu def yëpp day xeex. waaw ah yàlla baax na yàlla baax na ba daje fa rek. ñu mës a bëree rek yow yaa si problème yàlla na yàlla ñun rek. yàlla ñaanal ñun ba euh, làmb ja yàlla may si ndam lu sedd guy. ñu baax a baax. delloo bëggee bu wér. ziar wér. ok. garaaw bi ziar na. Eh, la. naka tey. sant rek. fekk fi xale. muy waaj diggante mag Sokh 2 bu jaxase Sokh 2 dafay duggoon juum te nee na combat bi war a rectifier boppam. <laughs> ah dafay duggoon daal di juum ah. Ah. bii passé mu war a ratifié boppam ah mbaa du gën a ñaaw sama yaakaar mu gën ñaaw de. mu gën waaw. waaw parce que ñi mu ki mu bëre loon ak kii doonul benn de. kon ma déggee sa wax fi mu jugee fii moo gën a waaw moo am loolu moom moo am moom ñëpp xam nañu ko waaw. non xeex moom garaawul bawal bawal yi moom ku leen di wax ay waxi xeex moom da wax la neex nun ba ñuy xeex dugg nu bawal dugg Ndakaaru dañuy bëre dóor boobu ay kii la ñuy tegal ay per per yi xale yi fooy egaat yi la tegal kon moom loolu mat ta wax moom. sint nañ ci fii dëkkat yi ñëw samp jaaga. fii dëkkat yi moom lépp la pare lépp la pare nun bu nuy pare lépp la ñuy pare bu ñu demee lu gën a yomb rek ñu def ko. lu ñu def ko xeex gën a yomb. ñu xeex. mu bëre ah no waaw ah, champion la moom parce que moom xale moom bu demee bay bëree grand ko baa ñoo la dégg ah, dina ko déggaat tey incha allah rabbi. fii la ko jëlee woon bi ay deuxième bi ay deuxième bi. dégg ko ah, bi ay deuxième bi. rabbi. Mbor si tey. naa ni. nga sa orange bi. waaw gis nga pare bés bi rek. waaw. na ngeen waajee seen digganteeg soq. ah comme ni nga ko daan paree yëpp rek. bii mooy gën a yomb sax incha allah. fan ngeen bi moo gën a yomb. non Sokh nooy booy la. Eh? dañ koy ñëw naxtaan tëral rek. Sokh du lay booy de. non nooy booy la. war na yàlla. kooku moo gën a tuuti si Aliou di daan. da ngeen jàpp ne Sokh lu garaaw ngay gis tey frip dip. Eh? war na yàlla. si xeex du am deux minutes. waaw am na de du am deux na yàlla. bu dip. dóor ko mu dëju. bu ko coppati tànk bi dëj ko. lu garaaw laa la wax wóor na yàlla. wax nii Fils wax lu garaaw du yàgg. amul naa ne ndox ñëwaat de xam nga moom pata amul dem naa ndox ñëwaat de ah soq <laughs> yàlla baax na ah. après la ñuy comprendre. na ba pare moo tax mu wax la. Ah. firib dip. incha allah. <laughs> Barcelona. maa ngi si jàmm. mais Mbër Jalla. te yaa ngi ne waa nga o xel ko rek yaa am gën a xam waaw. da a jàpp ne Sokh benn kii la moor nee na oyofal ko yow nga ne oyofal. waa gis nga oyofal ko rek mooy loolu loolu la rek. am ngeen bu ngeen du lekkale feet. ah loolu du nañu am client. waaye client bii yi ngeen daan am bokkul. a ah, benn la rek six ay noof. waaw maa la wax loolu. waaw am nañ ci yaakaar rek liggéey na ko de loolu comme kay lu mu laaj kay mun na koo def. français la du xeex moom loolu yooru loolu xewi na yooru yooru xewi na léegi raak ah wax rek la ci am wax kese moom fils de Katy waaw mooy dégg bi de ah. sox moom na fee ci wax bi rek waaw wax ju baal. jëf ju bari gee ko gën. yàggatul léegi. waaw yàggatul ñun tiituñu loolu pare nañ. seede leer si kanam. Ah, na ñu ci kanam. zonam <laughs> ça va. jaar naa la. loo teg bandi. non non loolu sax. nga teg bandi. non teguma bandi. <laughs> loo teg bandi. <laughs> non non teguma dara bandi bu dara. dama jëma nappaale sama waay nga yow. naka mu maa ngi nii sant yàlla bu baax alhamdulilah. tey ni nga daan pare ni nga pare bi bokkul. non pare nañ comme naan daañ pare rek waaw incha allah jàpp gaan gi rek daan ko incha allah. koo xam ne benn la dégg mu ñëw te yéen a ko joxoon. Ah, kooku day xaar. waaw day xaar tey ñun ñoo ko moom bés gi tey tey incha allah ñun ñoo ko moom waaw kooku moom soufflé bi moo ko bàyyi fa at bi soufflé moo ko fa bàyyi. la ma bi. waaw soufflé moo ko fa bàyyi. am ah, moom na ñëw daanu rek ñibbiwaat xam nga motori contrat am rek loolu kese waaw. nee na fi ñu toll nii gu fanaanoo mer la. non sox day xaar waaw day xaar fils de pat kat yi pare na ci lépp xeex bëre yëpp la pare waaw incha allah jàpp gan gi rek defaral ko lu ñu koy yëb waaw xejul ci gan gi sax keneen la keneen lay kii mais du kii nii sox waaw incha allah day leer ci kanam yala baax na. nii champion la boo xam ne kenn xamul woon fu mu nekkoon ci dëkk bi. si loolu. maa lay ziar naka mu. sant yàlla bu baax. man maa ngi sama écurie di entraîner chaque jour. maa ngi duggoon ci mbëkk bi. non man moom génnaguma Sénégal moom. maa jëloon mbëkk bi dem. non non dem Mor da lay tooñ rek Mor combat bu mu paree man maa ko jox kele bi. waaw da lay tooñ rek man chaque jour maa ngi entraînement maa ngi diriger entraînement booy yi ñuy liggéey. combat bi nga baari kele bi di ko. rek mais booy bi Youssou Ndour pare nañ ci moom booy bee ko man fuuf coow lay bëri rek mais bu ko jàppee làmb ji jeex lamb ji jeex. loolu. da koo dàq bëree te Youssou Ndour nit ñi dañu yaakaar moo booy bi doole tëpp ko doole. nee na Mor a ngi soog a am client. non day sóob rek Mor Mor Mor mii bawal ba Ndakaaru ñun ñoo koy ñoo ko yor suñuy tànk la jànge bëre yàlla xam na ne lépp Youssou Ndour di lu Youssou di jaay ci làmb booy beeg kooku aw billaahi du ma tëdd di nelaw sax di ci am xel ñaar. da doon yoor waaye yëpp na client bu mat yëpp. ñun ñu yooroog ñu xaara ci yem Youssou bu ñëwee dañ koy daan bu taxawee dañ koy daan moom na ñëw rek tën. lu mu def daanu booy bee ko mën fuuf. moor du xeex moor day ñëw te moom fas dafa bëgg a samp jaaga. loolu moom pièce la bu muy laajtee ay moor day xeex ak du xeex ñun li ñu pare la ñuy pare ay moor lii ñun lu combat bi laaj lañ koy wax waaw lu mu laaj dañ koy def. moo yow loolu ay kii la rek moom am mbër moom de fois da ngay dugg fenn yàlla may la chance nga daan mais fekk na boobu ñi nga doon daan ak dafa am combat yoo xam ne ñi ngay bëril ak koog duñ bokk loolu la quoi waaw non soq de moom man miinu ma ko lool wax dëgg yàlla. dégg mu ñëw si yéen ko joxoon. moo yàlla xam na ne man dama koy ñaanal jàmm rek mu ñëw stade ñun ki ñu yor laa xam muy fils de Katy mais en tout cas mosul dégg mu ñëw. mais mu dégg mu ñëw si yéen ko joxoon. tey ji incha allah ci kattanu yàlla da koy déggaat. fils de Katy pare na de pare na lool macha allah. mu ñëw samp jaaga xeex xeex bu sax. day xeex day bëre fils de Katy moom bu arbitre bi ne faa doo taxaw foo taxaw mu fekk la fa xale la booy bu ndaw la 2002 sax fekk na judduwul 2002 judduwul waaw ah, kon jeex na 2002. mu gaaw bañ a gaaw bu booy bi dëggalee boppam du yàgg xaw ma mu daw de waaye bu taxawee li fils de indi Katy indi bu ko indee combat bi du yàgg du yeex. dina leer ci kanam. incha allah waaw. jóge si loolu. waaw sant yàlla bu baax. sant yàlla moo am jàmm bu sëñ ngeen di wàcc seen diggante ak Sokh bu Jaxaay wàccaay bi nan la. non wàccaayu wàccaay waaj nañ ko ni ak nin ko war a paree ñëpp si bépp côté si physiquement si bépp côté yaa ma gën a xam Sokh 2 pare nañ ko si bépp côté te noonu am na nañu yaakaar bu baax a baax baax ndax parce que li ñu liggéey gëm na ne incha allah gan gi du ko utilisé rek incha allah day am ndam si kaw Sokh. adversaire yi mu daan am ak yi mu am yëpp man dama jàpp ne bii moo si gën a yomb. bii yomb. non danoo xam li ñu doon danoo xam ki ñu yor mooy kan danoo xam ki ñuy topp mooy kan. ndax soo mu ne man li ma sa a naqari bool bool yi dama ko tegoon sa combat bii naa si war a waroon a sam non bii nag li li koy naqariwaat tey baal baal yi noo koy teg. benn defet la am te ko joxoon. non rek bii nag mooy deux bii day deux bii day ñaar kenn mënu si dara incha allah maa la wax lii lii lu nu liggéey la doo doonut loo xamante ni lu nuy wax nii rek rek du kese kese. du waxee nu duma ko bu bëree nu daan ko. noo ko ëpp doole aller retour. aller retour noo ko ëpp doole si ñaari côté yëpp. barke Seigneur amul xalaat kii xale bu ndaw la kii mooy fils de Kati amul xalaat mooy borom firib bip bip. dina allah amul problème mën naa nekk aja. Eh, waaw jëwriñ. ñooy dellu ziar bu wér. naka waaye sant yàlla bu wér gay da ngaa laal sa tës. waaw fils de Kati moom rek la ñuy topp. wóor na borom Touba. bëgguñu kenn ku dul moom. billaa wallaahi. wax nañ leen ne dugg ngeen si rapport Samba Laobé. Samba Laobé. Samba Laobé bi day xaar ba jamono neex Fils de xale la te li muy def da koo mën tirisewul kon tey ji mën naan ne tey jii bésu ndam la nu nekk ñun li ñu nekk nii tirisewunu barke borom Touba. ngeen am day xeex day bëri. non ragalunu loolu wóor na borom Touba lu mu andi rek dina ko fek mais lu ko naqari si làmbam sa bool boole ko joxoon. waaw da koy gën a naqari tey nag bu soobee yàlla li ko naqari noonu tey la koy gën a tiis non tey lan ko koy joxaat tey la am deux défaites wóor na borom Touba. dafa mel ni bool bool dañoo xam saraxu na soq day xaar. wóor na borom Touba dafa gàtt déggoo li ko mbër wax da ngaa sok soq dafa gat wóor na yàlla day xaar ba jamono neex billaa wala si kanam waaw yàgg na léppay leer bu soobee yow maa la wax loolu bul daw faar am na yàgg na non damay man ragaluma faar man du ma dem faar billaa walaay nga la fils de gàtt kese kese ñun fils de gàtt rek kii na koy faxas jàll waaw kii na koy faxas jàll si kanam dina leer yàggatul dara tike si loolu nice waa gis nga maa ngi nii rek waaw après jox waaw am ngeen kilaat waaw gis nga de comme noonu def rek firib diw rek waaw añ la xalil ceebu mbër a ngi ni ceebu mbër a ngi ni de xalil ceebu mbër ni de xalil xalil daa mel ni lii ceebu mbër la xalil ñëwal yaay booy na nga def yaa ngi ci jàmm kon xaar ñu njëkkee si yaay yaay daa yaay mel ni yaa di nekk waañ bi de yaay ñoo ngi ci waañ bi waa. yaay bu ñu la nuyoo pare. yaay doom wara génn. Hmm? doom génn nga war a dem lekk sa beneen doom nan ngeen ko waaje ah xanaa di ko waaje dañ ko doon waaje rek macha allah wóolu nañu suñu doom daal waaw. di ko ñaanal rek mu jaar fa mu doon jaar waaw. ñaari doomam war a yaay nan lay nan lay dundee loolu. nan la koy dunde di ñaanal ñoom ñaar ñëpp jàmm rek mais sama doom daal moom bëgg naa mu am ndam comme na mu ko doon a a <laughs> waaw loolu la ñu wax de. Ah. waaw nee nañu pëccam liir bu neexee yaay jaa jàpp ca mbagg ya. pëccam waxu yaay. waxu na. ah bàjjen moo di bàyyi wala rak. laay ndeysaan. lu xew lu ne bàjjen taxaw. moo tax bàjjen moo moo mu ngi nii. waaw loolu de dëgg la bàjjen bi daa bëri kersa. Ah, tarkala macha allah. jàmm jàmmaarloog sa beneen doom. wallaay ndeysaan ah dara dina tiis mais dara dañuy sant yàlla rek. waaw dara am ci moom yaakaar rek. di jaan yàlla mu jaar fa mu doon jaar loolu daal la ñuy wax. sa yéen a këppoon seen i reer ñoom. ah loolu dëgg la dara ñun daal moom li mu ñu tàmma rek la ñuy xaar ci moom. bëree daan ñibbi bëree daan ñibbi yàlla sede na ko am programme ñuy jàkkaarloog moom di ko rëkkal naan ko fils de Katy mbaa ragaloo fay biram looy ragalee am nga juddu am nga mbooloo mbaa ragaloo noobul la garmi la tubarkalla macha allah baayam gërëm na ko am nañ ci moom yaakaar ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax moom mooy borom firib dip bëree daan ñibbi firib dip lii laa wax ci moom te looloo si moom te bu ngoonee di ngeen ci xam dara. incha allah dina neex dina leer. wasaare ngeen wasaare yéen a war a wasaare. waaw fi day leer ñu ngi lay doon ziar baax a baax. waaw waaw ndax xam nga lan moo waroon bisub dëgg la da war leer. daa war a leer bisub dëgg. ndax non yooyu caaxaan la bi mooy dëgg bi ndax ci la lépp war a leere déggoo ma de am na am na fu muy am na nit fu muy a war a leer te fi war a leer daa war leer. man séntu na ci mu ñëw samp xeex. non. combat bi di ma la xamal mooy bu soobee yàlla bisub dëgg rek te daa war a leer xanaa déggoo ma bisub dëgg lu war a leer kay amul li wax amul simi ah waa amul ak laam-laamee ñëw rek daan ñibbi daan ñibbi daan ñibbi xale bi ngeen jël ki ñu xam ki ñu mais jarul xam xam lañu xam liñ indi ñun daan ñibbi waaw déggoo ma nit koy lijjanti day fekk nga bëgg a xam ci dara ñun li mooy daan ñibbi waaw looloo leer. dina leer si kanam. waaw bu soobee yàlla waaw leer na yàlla yàlla dafa leen jàmm barke Seydina Mohamed nekk leen ci. bi booy booy bi sama adversaire la ko maa war a jël nangu maa jël. doom maa lay béggee. ah doo ma jël man ak yow. non na ma gars yi sama waay nga sama waay nga na ma gars yi ma defaral. démb daan sama waay nga. mel na kamu naka tey waaw ñu ngi nii rek billaahi waaw sa waay ngi nii ceeb bu xonq ceeb bu ruus waaw billaahi tey waaw suñu doom day la ñuy indi fils de Katy di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci barke Seydina Muhammad non so soq xam nañu daal ndax moo jiitu ci affaire yi mais yàlla baax na yàlla ñu yàlla defal ndam ci barke Serigne Touba ah. waaw xaman nañu bu baax a baax ñu ngi ci Dakar ñëw ñu waxtaan ah. ñëwal ñu waxtaan comme ñan comme ñan fi ñu toll yow ban léegi sama combat bombal dara loolu combat dafa neex ñëpp a ko bokk. budul eh, bombal budul bombal. mu ngi fi nañ ma waay nañ ma leen jox. loolu faaw ñëw. ay papa loolu faaw ma ah, ñëw bu Siteu sax bu bëggee. ñaka si loone bëgg naa la. yow nga jóge sa combat wala gis ñu la dégguñu la. dégg naa da ngaa demoon championnat Qatar. waaw demoon naa. waaw. daa mel ni Qatar neex neex na trop sax trop ah. waaw. temps da nga leer daa demal safe naa kataan. non leer sax xam nga rek man instant yii loo ma mën da wax lu adversaire bu ñëw bi rek man waxuma dara. te doom de ñibbisi na. ñëw na waaw ñëw na waaw ñëw na ñëw na Yankaw ñëw na. ñoom ñaar moog Yankaw safe naa kataan lañ nekkoon. waaw xam Qatar di noo gottu rek. non si lamb ji fii mënoo am adversaire da ngay dem si mbapat yi nga dem bëre ji. fi ñu toll nii moom fi ñu toll nii nga arara. non arara mooy loolu moom champion la quoi xam nga rek lamb moo demee noonu quoi mbapat la rek. voilà ñoom benn yoon lañ door a daje quoi man benn yoon laa door a daje moom benn yoon laa ko daan. su ma jub na nga ñëw Njaay Njaay daanu si rawgat bi demi final daw bindu poids lese jël ko. waaw dem jël ko non ki daan lese bi sax maa ko mën su boobu maa i door dugg si combatteur yi quoi xam nga rek ak condition bi amoon condition quoi maa bëreel ba saa bopp ma door a ñàkk quoi ci laa commencé récupérer waat ne ma ne damay jël lese bi quoi ndax lamb yi ñu si nekk mënuñu ma waaw. ma ñëw laa daan benn njool fàtte naa sax tur bi quoi après ma daan ko deuxième tirage laa daan arara ma daan ko. nga daan ki nga xam ne saison bi ñu génn mu nekkoon waaw loolaa dégg quoi moo jël meilleur lutteur quoi waaw si raw ga si si si waaw ma ñëw daan ko. ma champion la nag mën naa bëre trop dama ka waaxu rek waaye champion la de ndaanaan la ndaanaan la mën a bëre la ndax kale yi ma ko dóor yëpp su ma doon bëre première kale laa koy daan bu yàgg. waaw teegi teeg rek te lu ma teg da koy gis. lu ma teg da koy gis quoi mën naa bëre champion daa a bëre. waaw rapide laa ko daane quoi waaw. waaw fi mu toll nii nag si loo xam xaaruma dara lu adversaire yi ñëw rek gars yi koo si wax ne ko ñagas mu bañ koo si wax ne ñagas mu bañ nu may def may toog xaar rek war na yàlla li ñu wax ci adversaire mat na neuf koo ci wax ñagas de bëri na ay ñoom Anaconda ñoo ngi fi ñoom Begaay Jokom Balde xam nga ay ñoom booy Pire ñoom ñëpp wax na leen gars yi koo ci wax mu bañ ay ñoom Baba Jaxal xam nga gaa bëri na gars yu bëri ñoo ngi leen di wax ñu bañ. ko kooku du jël avance réparé moom ay la fa yoo xam mais du jël bu desul moom moom wax dëgg xaaral ma laaj grand bi xaaral ma laaj danse mais du ma sa jël ñagas xam na bu baax. gis na ma gis na ma may bëree côté Gambie gis na bu baax a baax. voilà kon xam nga ne ñu jël sama avance wóor na yàlla ñàkk adversaire moo tax ñagas toog ba ba léegi mënul bëri wóor na yàlla mais bu ñu may indilee adversaire bu baax ku ñëpp xam ah toj comme man ñu bëre ñi nga tànn fii nii bon moo la si gënal. ku ñëw baax na ku ñëw baax na Jacob Baldé bëgg naa ko trop ak ak Anaconda. Jacob Baldé Anaconda. non damaa xam ne dañuy bëri ay bërikat lañ quoi te loolu moom arrangé te lam xam na leen quoi. ak si yi nga jógee nii. waaw ak si yi ma jógee nii. waaw loolu moo tax nag ma bëgg koo xamante ne nii waaw mooy loolu quoi favori la quoi si lam waaw. yow favori nga. non du ma favori sax mais ñooñu laa bëgg ñu nekk favori quoi. Ah, dama bëgg non non instant ne defaguma dara si lam damay door a door defaguma dara bilaahi li may bëree sax ko fii li may bëree ko fii ci arène bi damaa bëgg di bëree ba amateur yëpp kontaan ba ma jox leen li ñu am ba pare ma door a bëri daan voilà Jacob Balde nga bëgg wala Anaconda Jacob Balde Anaconda ñooñu sama sa adversaire suñu mënul ñàkk ñu jox ma Maguette Seck ñu ko jàmbar waaw bëgg naa de billaay wala xeeru ngor sama adversaire rek ñëw si lamb ji mais gars yi dañuy taamu quoi xam nga. la moo tax la moo tax yow la moo tax maanaam yow fi ñu toll lu yomb lu diis nga tànn. lu yomb lu yomb amul si ji ku bëgg a lu yomb ku leen da ngay dem xooli fële nga dem nappi jën wala leneen waaw mais man tànn wala lu yomb loolu laa bëgg nag man ñagas képp mu am ñaa ko day dóot bilaay bu sa loxoy jóg ngay daanu waaw xam nga nag man loolu dëgg la waaw dëgg la moo ne ma bul door quoi bu ma sañoon doo dóor benn doomu jàmbur muy muy lii quoi koo ci mën a jàpp daan ko jël bu gaaw nga daan voilà non ku ku jël décision duma ma ma jël décision daan la mais bu dóor yi méttee moom ma fay moom nga teg waxu yaay ah non après pare naxtaan ko rek ne ko xam nga rek ni mu demee <laughs> ku yee saf quoi mais waaw waaw ziar bu wéréer waaw ñoo far kontaan ceeb bu xonk <laughs> kii dafa bëgg lu yomb quoi dafa bëgg lu yomb moom lép la fi bàyyi depuis boppam ceeb bu xonq ceeb nuyu naa la. maa lay Idi. ceeb mi ceeb mi ma daan gis ak ceeb mi bokkul mbooj bi màgg na dama ne mbooj bi màgg na def jar. sama turando heure yi moom mooy loolu. tey bii moo fi am bu dooree weex bi non du ma añ gis ko gars yi ñëwee si boobu léegi mais man mooy loolu. billaahi. genre fël-fël yow sotti la non nice mën naa seere <laughs> baal ma gedde rek non bal ma gedde oui. tey ngeen di wàcc seen diggante Sokh 2 bu jaxaay Sokh dafee duggoon ngeen nax ko daan ko te mu ñëwaat wala tifiwaat mais loolu noonu Sokh daa juum day gën a metti rek waaw parce que presque laa mu jox xam presque un an la ñun waaj nañ li ñu war a waaj yëpp xam nga di ñaanal fils de kat yi suñu borom may ko ndam incha allahu rabi tey la 25. non dama koy ñaanal parce que gëm-gëm bi la ñu yóbbu te incha moom la ñuy indi. billaay. gumbale xamewul janj ak joor. non kooku sibul après lay naan billaay après lay naan dañoo noppi waxuma la pare de dañoo noppi waaw yi ñu ngi wax rek mais booy ñooy xaw. xaw di off rek dama dama bëgg sérieusement li may wax nii dama bëgg ñu jox ma mbër yi. ay mbër la bu ñu jox ma. parce que dafa am si lu ma jógee xam nga. te ñaanatuma fa dama dem dëkk bu ma masul dem nañ ma jox bëri yi ma bëri ku si mel ni booy ñoom kiriku masul masul daanu masul daanu nest ndaanaan la nañ ma ko jox dama xam ne ndaanaan la mbër la tànn non man tànnuma de walla gis dama gis ne may def ay te xam naa ne mbër la ndaanaan la moo tax ma war a bëre ak moom néew ma fi naa la ay jox ma ay mbuuj de kooku yéen ñëpp yéen a d'accord ne ndaanaan la waaw dama bëgg ngeen jox ma ndaanaan loolu. bu dul kiriku. non comme samay morom rek. comme ñan waaw samay morom bëri nañ fii nii. comme ñu war a bëreel ay ñoom Aliou. ay ñoom kiriku. non Aliou fët fët na ñëw ñu bëree. man ñooñu laa war a bëreel. man damaa war a dem de. te eh, man tooguma fii dama war a dem ca kaw yeggi. lu ma gëm la lu may liggéey la. kan mooy cox mu tàkk. non man kooku sibu ma ko ah. la yow gaal ak man loolu kooku sibu ma ko xam nga moo tax sibu ma parce que man yow kenn dul ma la wax xam nga man maay kan mais man xaw ma ko nañ ma jox voilà nañ ma jox booy yi nga xam ne instant nii xam nañ leen ma bëre ak ñoom dama war a dem fii sama garage quoi. su ma déggee sax Aliou nga bëgg. Aliou Fatfat ñooñu nañu kiriko. waaw xam naa ne mbër waada la nañ ñëw yaa ma gën a xam ceeb bi nag yaa ma gën a xam. nañ ceeb bi dafa war a ñëw. barki Serigne Bamba te ku ma fi njëkk a amaat maanaam mbooleem luy tax ñu nga bëgg ceeb rek ak nga xemem ko rek naa la ko naa indil Dakar suul bagaj xooñ xam nga gaa yooyu ñeex suppa meji comprendre nga nga siy bëgg te doo si am. doo ko du ma la si may dànk. bu la ñaanee dama war a bëre. Ah. booy ma war a bëre nañ xam ngeen ñi ma war a bëre nañ ma leen jox dama war a bëre. dina leer voilà. avant tout maa ñaanal fils de Kati. ndam lu sedd guy te incha allah yóbbu nañ ko. yaa ngi dégg incha allah dañ koy indi ah. yàlla na jeex na